saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Ama Baldé ma sunu làmb ñëw seetaat taxawaayam gannaaw ba Jules Baldé Junior génnee àdduna le journal ba xamle mooy Ama Baldé ba Jules Baldé ñenn ci waa Pikine dañ koo joxoñ baaraamu tuuma ñoom la jàpp mooy da koo sàggane taxawu ba ca waroon dëgg-dëgg defu ko loolee moo war a réseaux sociaux yi foo dem fekk fa ñu fay ŋawti ŋawti ab turam li moo war a journal ba xëy sampab laajam ba xam ndax Ama Baldé waa Pikine dañ koo biti loxom déet moom Jules Baldé a de wax joojee képp ku nekk ca Pikine dégg nga coow la li ni mel nag bu ci taxawu teggi tuuma mën naa wàññi popularité foofee ca Pikine kenn ka jot a jël kàddu ba teggil ko tuuma sax mooy ondu la foo bariwul lu nu koy gis muy défendre mbër waaye bi yoon def na ko ci Ama Baldé sunu lamb d'or di trophée bi ñuy primé meilleur écurie troisième édition ba ñu nga koy dëgmal bile saison nag dafa wuteeg saison yi fi jaar saison bu metti bëri année balance bëri ne nañu koy tànne mooy victoire boo am 3 points match nul benn point la boo amul victoire zéro point la équipe bu ci nekk nag mën ngaa commencé limal sa bopp dina tal sa bopp gannaaw ñenn ñi ci diggante Garga Mbossé ak Sa xotti contrat ba contrat ba doon dox ci diggante Garga Mbossé ak Leewtoo xotti nañu ko contrat verbal moo doon dox ci diggante Leewtoo production ak Garga Mbossé jotuñu xaalis dégguñu xaalis dañoo xotti contrat ñoom staffu Garga Mbossé la ñu xamle mooy xaar nañ amatuñu dërëm te xamuñu ndax kaawu Sa Thiès jot nañu wala déet waaye la am ba des mooy combat bi amatul gannaaw Sénégal Entertainment Group bëggoon nañu combat bi diggante Garga ak Sa mën nañoo dellu si amoon na blocage ci kase waaye mën nañoo rediscuter waat contrat ba ñàkk déggoo ci kase doxoon na suñu diggante ak ñoom waaye bu ñu waxtaanaatee danañ juboo bu ñu jàllee ci écurie Waalo ci seen bilan 2019 leen di fekk ñu def 7 victoire 5 ca Gàmbi booy jaxaw daan njaaxum 2 bu Cheikh Bamba mbaytin Junior daan daam suger 2 Baye ma Njaay daan Hercule bu Grand Médine Macha Préra daan Albarka Kayre Caatu Waalo daan ñagas bu Bawol Taalibé daan Dorosine bu fekkee ma si boole seen 5 défaites ya dofu jaas la Lumumba Aline Sey Junior ak Maji Maji seen ténor yi Aline Sey 2 combat ak ñàkk jariñu mujjuta antu Lac de Guiers dafa année blanche amul combat bile écrit noonee la def ren li gën a fas ci yéene kaay bi ñu leen jox di daje ba ëllëg incha allah.